waaw euh, di nuyuwaat euh, suñu invité yi euh, bu ci tegu mooy actualité bi moom principalement mun nañu jàpp l'événement du Joola ak gàmmu bi maintenant ci lecture presse bi bon def naa loolu mooy sur le plan psychologique wala sur le plan social des na lu bëri ndaxte boo xoolee gàmmu bi politique perturbé na sax sensu euh, gàmmu bi euh, à la limite campagne électorale déguisée la ñuy def euh, ci gouvernement bi à tel point que ñoom ñëpp dem nañu Tiwaawoon Kaolack ak yeneen cité religieuse mais teewuñu par exemple ci événement bi nga xam ne mooy Joola dañu dem célébrer seen visite ci capitale religieuse mais kenn célébrer le Diola. Uh-huh. Au niveau de l'État, au niveau du gouvernement, il y a une absence totale. Uh-huh. Euh, la mémoire gouvernementale, la, la mémoire de, de l'État, elle, elle, est presque inexistante. Alors que bon relais, comme Julien Journaux c'est 21 ans de souffrance. C'est incroyable quand même que nous avons tragédie, euh, plus de morts, des familles euh, disloquées, des familles qui ne savent pas gérer euh, leurs enfants, des, une région complètement abandonnée comme la Casamance. événement bu rëy noonu gouvernement amul lu mu ci jàngal askanam te taxawu ci alors que c'est un événement quand euh, je crois que état bi ak société bi la jola interpellé et loolu événement bu mel noonu quand même gouvernement bi ak président de la République ak acteur politiques yi war nañ ci bàyyi xel y a un travail de de mémoire euh, état bi rek moo ko war a euh, gérer et ça je pense que c'est un débat de société bon état bi euh, il est interpellé la société aussi est interpellée comment se réapproprier euh, le, le, l'événement du du et je pense que wax nañ ko le côté éducatif comment faire pour que Joola bañ amati donc ça c'est le problème du Joola